mën na créer emploi daleen di wax lu ko neex état du créer emploi secteur privé national mooy créer emploi moo tax ma fas bu ñu yàlla dénkee majorité ñu fexe ba défendre le secteur privé national fexe ba nga xamante ne li nga xamante ne moom laa jàng Chine jàng ko Singapour jàng ko Dubaï nga xam ne bi ñuy soog di jóg ñoom dañoo dooleel seen secteur privé fexe ba cinquante pour cent ci li ñuy liggéey ñu jox ko seen secteur privé national loolu moo tax tey ñu yegsi fi ñu yegsi loolu moo tax tey ñu am ay entreprise yoo xam ne dem nañ bay compétir au niveau international loolu nag laa bëggal Sénégal loolu laa bëggal chef d'entreprise yi nekk ci senegal ndax man soxoruma tolluwuma fu may nekk naan maa ngi siis nit wala maa ngi iñaane nit ndax yàlla dimbale na ma waaye nag bu ñu yàlla dimbalee man lu ma gënaloon moo yàlla defal ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp tawféex yàlla jox ñëpp koom-koom ndax boobu ci la réew mi di gën a neex bu ñëpp amee ci la réew mi di gën a neex wala boog bu ñëpp mun am li ëpp ci mbooloo mi li ëpp ci askan bi ñu am mënal seen bopp bi fajal seen bopp loolu mooy sama mébét ma ci woo aussi le secteur privé national di leen xamal ne yëg naa seen coono ndax coono yi ngeen di daj jànkonteel man moom lay jànkonteel y a une pression fiscale terrible nit ñi ñu ngi fay impo et wax nañ ñi ci tubaab trop d'impôt tue l'impôt nasaraan yi ñoo ko wax ci science la te ku dem gis ko ñu fas yéene nag suñu yàlla yóbboo assemblée ñu fexe ba impôt yi ñuy imposer chef d'entreprise yi ak jigéen ñi entrepreneurs yi entrepreneurs yi ñu nekk ci pêche bi napp bi agriculture bi ak des ak l'artisanat ak transport ak yeneeni secteur ñu fexe ba jàppale leen fexe ba ñu am accès au financement comme ni ko femmes yi bëggee bu ñu amee accès au financement ñu encadrer leen à travers l'Assemblée nationale jéem a voté ay loi yoo xam ne dana leen permettre encadrer leen ñu mën a développer seeni activité ba mu mun a am koom-koom boo xam ne danañ ko mën a denc ci banque yi ndax tamit mbokk yi euh, boru Sénégal bi ma fi déggoon fan yi ñuy wax mais bor boobu waa bitim réew ñoo ñu ko lebal mais balaa mu doon neex sénégalais yi am jël seen xaalis dugal ko ci banque yi ba bu nguur gi soxlaa xaalis sénégalais yi lay leb loolu mooy réew mu bëgg a jëm ci développement donc ñu bàyyi naxaate yi bàyyi iñaan bi bàyyi teg bët bi Sénégal dafa mel ni ku nekk boo jógee yaa ngi xool au lieu nga xool li nekk sa plat li ci nekk yow yaa ngi xool li nekk ci platu kële te loolu dara waralu ko dul ñàkk ñàkk googu nag mun nañ ko faj nuñ koy faje mooy ñu fexe ba sénégalais yi am accès au financement sénégalais yi di entreprendre sénégalais yi di créer seeni société di créer emploi ñoom ci seen bopp comme man mii ni ma ko defee man su ma ko defee xëy na junni ak junni ak junni junni sénégalais mën nañ ko ko ëpp dañ leen a joxul opportunité yi rek mais bu ñu leen ko joxee ñu gëm naa ne danañ ko def ndax man musuma jël sama CV jox ko nit ne ko damay demander emploi te gëm naa ne sénégalais yi aussi ñi ci ñëpp loolu lañ gëm dañoo bëgg entreprendre seen bopp bëgg ñu ñu leen di employé dañu bëgg yëngatul seen bopp amal seen bopp di jëfal seen bopp loolu nag laa bëgg bu ñu demee assemblée nationale ñu fexe ba loolu ñu jëmmal ko dooleel ko jox leen le pouvoir d'achat pour que ñu mën a accéder au financement jàppale jigéen ñi jàppale ndaw yi jàppale mag ñi ba lépp lu ñu bëgg ci réew mi yàlla dimbali ñu. ñu mën ci yegg ah fi mu toll nii nag am na leneen loo xam ne dañ naan balaa nga naan naam ne fa mooy liggéey koom balaa nga koy am day fekk jàmm am day fekk jàmm am cohésion sociale bi nga xamante ne moo amoon Sénégal nga xam ne sunu maam yi sunu sunu sëriñ yu baax yi ñoo ko fi sampoon sunu président ancien premier président de la république du Sénégal mu ñuy wax Léopold Sédar Senghor à bâtir un état tabax une nation ba nga xamante ne ñun ñëpp dañuy demlante di dëkkalante nekk ay mbokk di kalante suñu biir loolu mi ngi bëgg a dem mu ngi bëgg a naxsaay ñu nekk ci fitna nekk ci ay détails loo xam ne du jëmale kenn fenn loolu nag laa bëgg à partir de cette élection ñu mettre un terme à ça tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne day dox ci démocratie du rek nit ki da ko contre boo xëyee convoqué ko bu subaa nga convoqué waat ko jiiñ ko nekk da ngaa yóbbu or or boo xam ne moom bañ ko yóbbu moom nekkul ci dëkk bi nit koo xam ne nekkul ci dëkk bi nan lay jëlee avion naan ma ngay yóbbu or loolu xam ngeen ne mun a nekk mbokk yi ñu tegal ci loolu doyul ñu tegal ma tuuma ne ma ku xam France nu mu mel ak restriction ya fa nekk ak li am maintenant sur le blanchiment nga xam ne ay règles yu strictes la nga ne nit mën na jóg yëkkati 2 millions d'euros dem di ko verser espèce ci compte dégg gi sax dafay jigéen dafay jéggi dayoo loolu ni ku ko gis am expérience état buñ la joxee kayit googu da ko war a xotti sànni ko xam ne kayitu mbalit la waane defuñu ko pour yàq sama der tilimal ma dañ ma ko tuuma waane nag man yàlla daf ma dimbale ba ah, sama sëriñ ah, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké Euh, Cheikh Ndiaye mi fi toog mat na ma seede ba ma fa demee doon yóbbu addiya ndax guddi laa fa doon dem benn benn guddi Cheikh Ndiaye miy toog dafa wax ak moom di ñaawlu tuuma yi yi ñu teg sama der sëñ bi ne ma tuuma yooyu wax jooju yëkkati ko kese la lay jural te loolu laa gëm ma bëgg nag à partir du 17 ñu ñaan sénégalais yi ñu jël seeni carte sànnil ñu ko ba mbooloo mi ma àndal ñu dem assemblée tabax fa beneen genre député boo xam ne li ñuy def mooy saytu nguur gi doxal nguur gi teg ko ci dëgg ak jub ak yéwén ak yéene nit ñi ñu am parce man loolu mooy sama combat li ma bëgg mooy nit ñi am ba mun a teral seen i mbokk teral seeni i doom teral seeni waajur tasaarew aussi def di social ah engagement boobu nag mooy sama engagement engagement la boo xam ne ay nit wax nañ ma mënoon na la ci bañ a fekk man leen déedéet